mooy maanaam ay empêchement moo amoon waaye balaa muy ñëw ci loolu lépp dama leen di bàyyi comme tey ñu ngi altene ah ñu tombe ak le 13 septembre 2021 dama leen di bàyyi ngeen dem déglu yëglikaay li ñu indil muy sunu lamb ak les années ñu dikkaat ak yéen ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. lundi 13 septembre 2021 dañu ñëw kii ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy tey doore ko. yëglikaay bi di sunu lamb nag moom tey biraseen lañu xëy daal wan ñu ko mu mel ni ki nag biraseen soo bëggee dégg dëgg daal yëglikaay bi dina liggéey bi koy xaar ci lamb diis na lool te yaatu na lool te itam nag rëy na lool muy sànce boo xam ne bu mag a mag a mag a mag la yëglikaay ba xëy na tey limbal ñu ca bu bëggee dégg dëgg violence ba nga xam ne mu ngi ca lamb ja dopaas ba ak face à ya nga xam ne daal des fois ay jafe-jafe am mel ni nag mbir yi yëpp biraseen war naa taxaw régler ko mook équipe ba nga xam ne nii nii ñoom ñoom li ñu dénk làmb ji mel ni ki nag moom Bira Sène moom mu ñu dénk làmb ji ak ab équipe démb daal wala boog bu fekkente ne dañ doon def assemblée générale ñu naan ko AG daal daa mel ni dix mois yi nga xam ne ni moom lañ génne bañ leen fi tegee ak léegi daal soo bëggee dégg dëgg yëglikaay bi ne na la ñu jot a récolté la ñu dajale ci ab xaalis daal toll na ci million 37 millions 787 mille francs yoo xam ne tegal na 260 274 francs yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëglikaay ba ñëw na ci muy ñaar ñoo xam ne daal maanaam bokk nañu maanaam muy Ama Baldé ak Balla Gaye yëglikaay bi nag dana boo bëggee dégg-dëgg daal ah daa mel ni lu njëkk seen combat yi di teglantoo nii sunu làmb xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu ndax bu fekkente ne Balla novembre la war a daje ak Bombardier Ama itam ku ne xam na ne décembre ba war na daje ak ka nga xam ne moo di roi des arènes di Modou Lo bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moog Ama ñoo bokkub gox muy Boy Niang école de ba nga xam ne moom ca lay yëngutoo muy école de lutte Boy Niang daal ren boo bëggee dëgg-dëgg combat ya bëriwul victoire ya bëriwul defet ya tamit tam boo xoolee mook victoire ñoo xaw a tolloo ndax yëglikaay bi ne na quatre victoire la ñu am ñoom waa école booy Niang yemuñu ca ay defet boo bëggee dëgg-dëgg ñett am nañ ko ca moo tax Cheikh Ndiaye ma nga xam ne nag mooy seenub entraîneur moom ñu naan ko Cheikh Ndiaye boxeur boo bëggee dëgg-dëgg daal Cheikh ne na bilan bi moom nekkul bilan boo xam ne daal bu baax a baax la yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki keneen koo xam ne nii moom loo xam ne daa jàpp ne du lu baax ba mu koy ñaawlu mooy yi daal ñing daa jàpp ne daal lii ko jax si bëgg a def wala li mu ko def moom nee na daal du lenn lu dul jaay doole kese kese kese ndax nag ku ne xam ne ne yi daal ñing moom moo fi taxawaloon ab tournoi ay xale nekkoon ca ba tournoi ba nag ñu dem ba war a yegg ca njeexintal ga caatu Daawuda Fall ak Kaaw Gourne war a daje ñu doon xaar combat mel ni ki nag mbir ya fi mu nekk nii ak soppeeku da caa am jax da koo jël moo tax yi daal jàpp ne daal jax defu lenn lu dul daal la Youssou Ndour wayoon rek jaay doole daal la ko def loolu nag du samay wax wax yi daal di ñu ngi la jëmale ci ki nga xam ne moo di Jax keneen koo xam ne nii moom la mu nekkoon maanaam daal di wutal mbër am xëy muy Bamba Mbuub mel ni ki nag tey jii daal ci stade Léopold Sédar Senghor fas nañ fa yéene taxawalaat lu mel noonu ci altine ji lañ ca fas yéene gën a def nag mooy delloo mbay gi njukkal loolu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dañuy continuer demaat fa nga xam ne moo di les arènes les arènes tamit dikk na ci la nga xam ne mooy bilaaw ba nga xam ne CNC def na ko maanaam daal saison deux mille vingt jàpp deux mille vingt et un ba daal maanaam bu bëggee dégg dëgg deux cent quatre-vingt-treize combats am na ca 31 journée bëre nañ ko vingt 21 promoteur ñoo jot a tëgg 112 écrits ñoo jot a bëre 3 sites yoo xam ne daal bëre nañ ca yu bokkul ak itam ñeenti kaw yoo xam ne 4 kaw yoo xam ne daal am na ca yëglikaay ba mu xëy tey ñëw toppal ñu mbir yu mel ni ki noonu ak xaalis ba nga xam ne jot na koo récolté mu toll ci 37 million yoo xam ne yii daal tegal na 787 mille 274 francs CFA yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes tamit dikkal na ci ci ñu mbir ci ak yaatal ba tey César tamit ñëw na fa nga xam ne moo di écrit wàllu sept victoire sept défaite maanaam yëglikaay bi nee na bu bëggee dëgg-dëgg waa écrit wàllu jëmuñ sëng dikk ñu mbay laar maanaam maanaam daal bu bëggee dëgg-dëgg cinquante cinquante daal wala boog cinquante pour cent daal lañu def ci ak réussite yëglikaay bi di les arènes moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci li nga xam ne nii moom moo di les arènes mel ni ki nag am na koo xam ne daal tey xëy nañ dalal ko fa muy waxtaan mel ni ki nag que moom waxtaan du kenn ku ay Aysatu Fay madame ña muy Isabelle Samb ma nga xam ne daal wàllum olympique ba daa mel ni fi mu nekk nii daal bu bëggee dëgg-dëgg moo ko yore di ko doxal ba tey les arènes ñëw na dina wax daal ca lambi simple ja mel ni kii nag maanaam yi réunion daal day amoon na démb waaye nag Adrien Senghor boo bëggee dëgg-dëgg le 17 octobre daal 2021 la ñuy commencé waat la nga xam ne moo di wàllum lamb ja mel ni ki nag maanaam mbir ya daal bu bëggee dëgg fi mu nekk nii ñu ngi koy waxtaane Jackson nag moom am na lu mu nar maanaam mbayang lu mi nga xam ne daa xam ne daal jàk sa fas yéene ne nag tëgg ab surna ca Adrien Senghor nag ngir nag soutenir ka nga xam ne nii moom moo di mbayang luum ca feebar ba nga xam ne ni daal jàpp jàpp na ko wala boog mu tëral ko yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer day yi fanuy jeexale nag ak yëglikaay bi mooy ca bref ya mel ni ki nag Balla Gaye numéro 2 daal ka nga xam ne way jur la ci moom te itam tolloon ak papam jamono ñu naan ko Robert Diouf daal daa mel ni jóge na Joal solu dàllam ñëw ba këram nga ca Maris jaale su ko way juróom wa nga xam ne moo génn àddina mel ni kon daal loolu mooy àddina Robert Diouf ak Double Less mbay Gueye ñoom booy Bambara ñii ñépp ñoo bokkoon sénération am ña ca ñu wuy ju seen borom ñi fi des bokk na ci Robert ak yeneen yàlla nañ fi yàgg te wér lool àddina moo tëdde noonu moo tax buñ ci tolloo na rafet ba yegg ci lool jërë ngeen jëf comme ni ma leen ko waxee léegi rek dégg ngeen yëglikaay tey fa ñu xëy génn fan yi gisu ngeen ñu parce que li ko waraloon mooy génn àddina Double Less ñu daan nekk foofu ci ay reportage ba nga xam ne ni daal ah doon na parce que gis ngeen fi ay vidéo yoo xam ne nii jaar na fi si sarax sa ak denc baag yépp ba ci tamit yi mujje muy kera bi fa muut loo demee yooyu yëpp gis ngeen ko ci Equivox TV jaale ji moom muy loo xam ne nii ah lu ama am solo Sénégal yëpp rafetlu ko loolu mooy àddina kon defe naa ne loolu nekk image yoo xam ne ñëpp bi ñu ko gisee vraiment euh, bëri na ñu ma yónnee ay vocal ñiy wooma rafetlu image bi ñu gis ci Modou ak Balla ma ne leen ñooñu du ñu ay ennemis ñoom ñaar nañ ko waxee ay adversaire lañ rek pour benn tàkkusaan su jeexee ku ci nekk dangay dellu nekkaat ci sa jàmm parce que amuñu animosité déedéet dañuy liggéey bu ñu waree liggéey nag fil fale ñu liggéey ku ci am naqar sa morom day sol dàllam ñëw bokk ak yow bésu naqar ba moo boo amee bànneex tam noonu parce que bi way juru moo du génnee àddina kere Balla Gaye 2 bokk na ca ña nga xam ne yaakaar naa dem na ca armel te gis naa ko kër ca kër ñoom Modou Lo Modou itam kon moo tax mu defaat li loolu nag dama naan yàlla nañ ko yéex a fayante mais àddina moo tax adversité bi am na solo waaye terewul tam ñu sàmm diggante yi pour ëllëg du yàqu ndax ku ne war na jàngat ci diggante Double Less ak Mbaye Guèye adversité ba taroon na waaye gis nga fa ñu mujj a nekk ay xarit ba lu ñu sequ ko yal na leen yàlla jégal te xare leen aljana bu nu ñëwee nag ci yëglikaay yi tey xëtam mu njëkk moom sunu làmb gis ngeen kim ñu won Bira Sène ak la koy xaar ci ay sànce yoo xam ne nii daal ah ab liggéey la boo xam ne bu rëy rëy la moo équipe am loolu nag defe naa ne moo tax ñu teg ko fi parce que defe naa bu ñu la dénkee lu toll ni làmbi réew mi ndax làmbi mi ku ne xam ne ne nekkul bànqaas bu ndaw lu diis a diis la bu ñu la ko joxee yëglikaay bi nag moo tax mu gis na tey sànce ba koy xaar rëy na bokk na ci wàllum violence ba dopage ba face à ya violence nag dama naan du ci euh, maanaam du man du man na kese sax bokkuma ci da koo gën waaye bëri na muy am waaye ñun ci làmb yi ñu féete moom bu ñu sañoon dootuñu ko ci gis des fois nag ay mal intentionné ñoo xam ne sax bokkuñu ci mbir ma ñoo ñëw di ko fa dugal loolu nag yaakaar naa ne itam bu keroogee CNG ak ànd ak sécurité nationale bi nga xam ne moo xam police la wala gendarmerie danañ ca taxaw taxawaay a taxaw la presse wala boog ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ay composantu làmb lañ ngir ñu xeex loolu nga xam ne moom mooy violence te des fois muy gàkkal deru làmb te bokku ci loolu moom du see kese waaye la làmb yëpp a ciy taxaw Sénégal yëpp a ciy taxaw sécurité nationale dañ ciy taxaw parce que violence soxlawuñ ko fenn au contraire waxtaan ci xel ak xalaat la ñu gën a xaar ka di def ay violence dopage tamit ba tey bokk na ci mbir ma doppaas nag dama naan moom sportif bu dem bay doppewu pour bëgg a am niveau mu ngi bëgg a gagné yow trisekat nga buñ la jàppee lañ la war a def mooy waxuma sax aj la mais la war a raje parce que pourquoi doppaas entraînel naturel na mel ni nga war a mel yor sa doole ñëw jëflante lu la yàlla may nga yóbbu defe naa loolu tamit ah loolu moom bu ñu jegee mbirum doppaas nag loolu ñun dama naan mbirum CNC euh, lay doon ak médecins yi nga xam ne ñoom ñoo toog saytu wàllum wér-gu-yaram loolu ba tey bokk na ci sànc yi face à yi nga xam tamit day am te des fois ay jafe-jafe di ci am yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ab liggéey la rek buñ ko liggéey waxtaane ko rek lépp mën naa sotti ñoom CNG boobu nag ba tey yëglikaay bi war nañu leen ci aw photo mu mel ni ki nag ah euh, ginnaaw bi ñu leen fi installé bureau bu bees boobu fukki weer yi nga xam ne jot nañ ko fee defagu yëglikaay bi ñëw na tey ci la nga xam ne jot nañ ko fee récolté xam naa ay dagg xaalis la yëglikaay bi calculé ko ci 37 ah millions 787 274 francs CFA ah takku na loolu daal la yëg li kay na jot nañ ko fee récolté waaw loolu sunu làmb xëy tey wax ñu ko bu dee daggal la ah dafa naan xaalis la de du lu tuuti tuuti parce que ñeent fukki millions yu manqué du lu ndaw waaw loolu moom nekkul lu tuuti ba tey bu nu continuer Balla Gaye 2 ak Ama ku ne xam na seen mbokkoo yëglikaay bi nag nee na soo gis nag mu moom leen ñu ñoom ñaar ñu ñu taxaw mel ni ki nag seen combat yi teglantoo na ci weer yi boo xoolee Balla novembre Ama décembre ah, a dañuy liggéey bëri woon benn weer sax wala même bëri benn journée sax mën naa nekk parce que dañuy liggéey rek loolu mooy seen métier waaw làmb la rek ñoom ñëpp ku ci ne Ama mook Modou Balla mook Bombardier loolu mooy làmba ah. 4 victoires 3 défaites école de lutte Boy Niang yëglikaay bi wan ñu ko mel ni kon ren école de lutte Boy Niang bëriwuñu ay combat mais bëriñu ay victoire bëri defet tamit parce que tolloo nag victoire ndax trois defet la ñu am quatre victoire mel ki nag leen di tàggat di Cheikh Ndiaye moom ngeen di gis noonu moom jàpp na ne boobu bilan daal nekkul bilan boo xam ne bu baax la wax na dëgg parce que tamit loolu moom mais ren nag li indi loolu lenn la rek mooy làmba ji nga xam ne nii ren dox gi giñ ci doon xaar ci ak fi mu ni mu commencé yéex na commencé et puis tamit fi mu tëjee loolu bokk na ci li tax écurie yu baree baree bëri amuñu ay yu bëri ren ba tey bu ñu continuer ci biir yëglikaay bi yi daal yi nga mu ngi fay réclamer daa jàpp ne Jax da ko bëgg a doole wala jaay na ko doole sax ba pare ci combat bi nga xam ne moom moo initié woon tournoi wu ay xale yoo xam ne c'est des espoirs bokkoon na ci yankaaw kaaw gourdin albarka kayre caat daaw da fall loolu eh, wax dëgg yàlla idaal yi moo ko initié woon ñuy bëre di daanante di daanante ba yegg si tey kaaw gourdin war a daje ak caat daaw da fall euh, ki nga xam ne moom mooy yankaaw war a daje ak albarka kayre waaye nag daa mel ni daal idaal daa jàpp ne ah Jax dafa nangu mbaam maanaam da koo jaay doole muy caat daaw dafa la kaaw góor ne ah xamuñu nag lu xew waaye loo ci mën a dégg daal yaakaar naa li gën mooy yéen ñëpp ay promoteur ngeen ngeen di waxtaan te itam di jàppalante loolu dafay am solo de loolu dafay am solo waaw parce que itam euh, dama naan tey daal même bu bëggoon a tëgg lool sax dem ba ami jafe-jafe yaakaar naa ne en tant que ay promoteurs yoo xam ne yéen a bokk di liggéey bokk milieu làmb pourquoi waruñu ko mën a pousser jàppale ko mu réy mu def ko bu demee ba ne nag su su mënulee itam nag am keneen am na droit jël combat ba bu fekkente ne manut te xam na ne manut te mbëri xam nañ ne man ñoom ko seen xam ne bu keroogee keneen am na droit jël combat ba waaye bu fekkente ne man na te initié na ba commencé di def jàppale ko mu yeggale day gën a rafet man ci sama gis-gisu boppa ah. ba tey bu nu continuer jóge foofu dem les arènes les arènes tamit ñëw na ci gis ngeen ko loolu mu ñu wan bilan bi nga xam ne moom la seen CNC def yëglikaay bi nag toppal nañu ko ci ay combat nombre de combat nombre de promoteur ak site yi ñu ko bëree ak kaw yi ci am loolu la ñu les arènes indil boo xoolee nombre de combats yi toll na ci 293 combats maanaam ñaar téeméeri combat ak juróom-ñeent fukk ak ñetti combat 31 journée tamit am na ci fanweeri journée ak benn jot nañ koo bëree 21 promoteur ñaar fukki promoteur ak benn jot nañ cee tëgg 112 journée maanaam téeméer ak fukk ak ñaari écrits ñoo ca jot a wàcc bëree ñetti site maanaam ñetti place yu bokkul la ñu bëree yëglikaay bi moo xëy ñëw andil ñu loolu kaw yooyu tamit maanaam dóor mu daanu ya toll na ci ñetti kaw ñeenti kaw di moins xaalis bi nga xam ne moom lañ jot dagg mbër yi waxoon naa leen ko fee sànq yëglikaay bi tamit dikkaat na ci moom les arènes toll na ci 37 wala boo xaalis bi nga xam ne daal euh, sol waaw xaalis la boo xam ne daal dajale nañ ko toll na ci 37 millions 787 mille deux cent soixante-quatorze francs loolu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci moom les arènes muy loo xam ne daal ah bilan la boo xam ne CNC ñu ngi ci nekkoon démb di ko def mel ni kon daal macha allah kon ah loolu mooy li nga xam ne nii daal moom la ñu yëglikaay bi xëy tey indil ñu ko moom les arènes ba tey bu ñu continuer ak les arènes mu ñu xamal ne daal écrit waalo ren boo xoolee sept victoire sept défaite ah ñoom seeni combat boo xoolee parce que bëri maanaam cinquante cinquante cinquante pour cent de réussite loolu la ko yëglekaay bi dajale euh, loolu am na solo tool écrit waalo ñuy nuyu waa écrit waalo yépp bu ñu fa jógee Bamba Mbuub ak euh, association bi nga xam moom mooy fiis euh, bi nga xam ne moom mooy dajale mbër yi di leen defal ay formation ngir ñu am ay liggéey te am na mbëru ci am liggéey mais nekk tey jii tamit ñu nga fas yéene def benn fa nga xam ne moo di ca stade Léopold Senghor stade Léopold Sédar Senghor fas yéene delloo njukkal Mbaye Guèye loolu di lu ama am solo waaw loolu tamit dafa naa mbay gi ku ne xam ne ne membre la woon ci bureau bi daan jàpp ci liggéey bi kon bu génne àddina tey ñu defaat li kon Bamba loolu nga def rafet na trop bu nu continuer bref yi ci les arènes mu ngi xam ne Robert Diouf sol na dàllam ñëw jaale si Balla Gaye de way juróom muy lu ama am solo suñu papa Robert ñu koy ñaanal yàlla gudd fan wér-gu-yaram Mohamed Ndiaye alias Robert di doomu Joal di ci profité dund waa Joal yëpp yëpp yëpp yëpp ak ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi dund làmb di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne loolu rafet na parce que mook lees la woon lees jóge na fi Balla doomam la jarbaatam la léppam la kon loolu mu def tamit en tant kilifa lu rafet rafet la vraiment ah, loolu mooy Sénégal rek nañuy rafetal diggante yi quoi moo gën yenn am na ci yoo xam ne jëru ko parce lépp dañ ci nat li lay mujj daal waaw te ku ci am naqar sa morom day ñëw taxaw nit ki nag bu dee bu amee naqar nga ñëw taxaw kon bi jàmm dee am rafetal leen parce que bis yooyu du mën a ñàkk day ñëw donte adversaire dina am nangam sangam dina am waaye tamit di félicité ñu nga xam ne tey moom xule sama bopp laay félicité wala sax ma ne sama waa dëkk muy waa ak yaay ca kanam parce que yàggul bi ñu ko taxawalee ak léegi démb nekk suñu premier suñu premier daje réunion ah xule ak yaay di benn village ñu dajale un million quatre cent trente cinq mille francs pour lan besoin ak yaay bokk na ci am ndox bokk na ci fu ñuy bayee loolu pour maanaam culture mbayum noor parce que yooyu ku ne xam ne dafa am njariñ loolu taxaw ñu taxaw ci te loolu vraiment du lu yomb ci benn village boo xam ne nii ah euh, nekkul ab commune ab village rek la kon ñuy waaye nag ay nitu valeur fa dëkk waxuma woon ngir falaa laa dëkk mais loolu moo fa am ci nuyu waa ak yaay yëpp rawatina président bi nga xam ne moom moo jiite ak yaay ca muy Malick Diouf ak membre yi ne ci bureau bi yëpp ñoom Modou Bob ñoom Pape Ibra Fall ñoom Aliou Ndiaye ah ñoom ñëpp Modou Ndiaye képp ku ne ci bureau bi maa ngi lay bégee ak ñëpp ñi nga xam tamit ñu ngi ci biir ak yaay ci kanam ñi ne ci groupe whatsapp beeg ñi nga xam ne dugguñu ca dajale seen xaalis ñi nga xam ne tamit ñu ngi leen ñoo dajale seen xaalis ba joxe ko ñooñu tamit jar nañoo jaajëfal muy ak yaay ca kanam képp kuy doomu ak yaay daal ñu ngi lay ñaan di la tàll loxo ak beneen sénégalais boo mën a doon sax nga jàppale ñu ci li nga xam ne moom la ñu nas ci ak yaay ca kanam maanaam fexe ba ak yaay ca kanam euh, bokk ci li nga xam ne ni daal dina servir dëkkam pour les besoins loolu nag lañuy doon wax tey di jaajëfal doom ak yaay yëpp di leen ñaanal jàmm di wax ne ñun ak yaay la ñu am fa la ñu jóge fa la ñuy ndamoo mooy suñu doolee waaw buñ nag yaay ca kanam nag xel yi dina dem ci Touba ca kanam ndax ku ne nangam ca kanam sa day dem ci Touba ca kanam ndax Touba ca kanam mu juddu nekk lu nga xam ne royukaay lekk di e-, e-, exemple ñun tamit bañ toogee wala boog ñoom Malick ak ñam ko seqal ba ñu toogee xalaat ni lii war nañ ko ma def ñu roy ko ndax roy lu baax dara newu ci kon président Malick yal na yàlla def mbir mi ñu am ci ndam barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu tamit nekk ak yaay su suñu yaay yi suñu maam yi suñu soxna yi ak suñu jur yi suñu maam yi ñëpp di ñaan ñëpp jàmm di ñaan Sénégal yal na fi yàlla def jàmm xule ba suba incha allah rabbi